ñoo ngi jégalu ci vidéo boobu dagg ala kulli xaal yàlla nee na ñun ñoo leen bind def leen ngeen di ay góor ak yi jigéen def leen ngeen di ay giir ngir lan ngir ngeen xamante ak i kuréel ngir ngeen xamante yàlla ne ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax fëggee dënam ne ataqwa haahuna ci hadisam bu gudd booba yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ak ragal yàlla fii lay nekk ci xool du lu ñuy xool ci jëmm du lu ñuy xool ci ku foog ne ndax ku sant sàngam sañ naa taxaw wax lu ko neex te kenn du ko weddi loolu njuumte la ku sant sàngam ku baax la loolu njuumte la sant sàngam sëriñ déedéet da ngay jàng di jëfee li nga jàng di ko jàngale lii mooy tax nit ki doonub sëriñ koo xam ne nii jàngaloo diine na la nit ñi ñëpp jël nañ la teg fu la neex jàngalewoo woo diine ji même jàng nga waaye jàngale woo ko jàngale ko kenn même na la nit ñi jël jàppale lu leen neex mun nga nekk abid de ab jaamukate yàlla danañ la ko nangul ne ab jaamukate yàlla ndax jàngale doob sëriñ tax jàngale woo képp ko xam ne bëgg naa layal pas-pasam day dem mu jàngi xam-xam su amul xam-xam na dem mu laaj borom xam-xam yi kii li muy wax nii lan mooy ay firndeem loolu bu ngeen ko doon def rek du ngeen dem kër kenn di attaqué ji di violence fii di ñu leen di xeeb nit ñi di leen euh, minimiser à chaque fois ngeen di nekk fii nii après da ngay mujj yow boo moytu da nga da nga ñàkk a nawloo ñeneen ñi ci doonul dara sax da nga leen di ñàkk nawloo ñun faaw ñuy leeral mbir yi ak luy mënti xew fokk ñu koy leeral duul mu neex leen doonul mu naqari leen wax nañ ko fii ba tàyyi seetuñu ci lu neex ma sàmba seetuñu ci lu neex mu dem ma demba daw ñu ci ak doomu aadama daw ci benn nit ku ñu def lenn wala ku ñu wax lenn ci yàlla subhanahu wa taala lañ làqu di wax dëggam gii te yàlla rek tax wallahi lazim ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp lu ñuy def wala ñu koy wax yal na yàlla rek tax ragaluñ ci du góor du jigéen du mag du ndaw waruñ ci ngërëmal nit waaye nag ah duñ ci ragal nag lawmata laim yeddub aji yedde duñ ko ragal ci lii ñuy wax ni bi isnillahi taala danañu kon ne di ko wax te di ko biral ndax ñiy wax caaxaan toog ci tele yi nëbbuñu ko ñun ñuy wax dëgg ñu ne ñun dañuy nëbb wala ñun nañ ko bàyyi pour lan kañ la loolu di am kañ fuñ ko teg ay nit di toog di wax waa joo xam ne nii ñi nga xamne jang na ñom ño waron taxaw ne len arrêté len li ngeen di wax li ngeen di wax du deug mais suñ ko waxe ñu ne len est-ce que nit ñi tacc yu ba paré ñun ñu xamne ni ñi li ñi wax ni du non wax ko ñu ne ñun lutax ñun ñu wax ko wa lutax mom wax euh, ay tiaxanam yi lutax ki di wax ay naram yi ba paré ngeen ne ñun duñ ko wax danañ ko wax ngeureumal yalla lañ ci wër de wax naa ko ay yoon sikka sikkaangeeg borom subhanahu wa taala lañ ñuy daw de li ñi daw moy dajé suñ borom subhanahu wa taala ëlëk yàlla na ñu yéen xamoon ngeen dëgg gii te leeralu leen ko jaam ñii wala ñu dem ca kanam borom bi subhaanahu wa taala yàlla taxaw nañu jaam yii ay jaam taxaw na yàlla kii xamoon na dëgg ji te waxuñu ko woon lii lañuy daw ci suñ diggante ak suñu borom subhaanahu wa taala amaa keneen non déedéet lu ko neex position bu ko neex na jël lu ko neex na gëm lu ko waaye danañ wax nag ñun lii dëgg moom bu soobee yàlla danañ wax duñ noppi incha allahu taala bal yëf yi sax mën naa gën a tàng sax nag incha allah mën naa gën a tàng bi idnillahi taala ndax amoon nañ benn réserve boo xam ne jàppoon naa ne ak niteeg doomu aadama wala niteeg nit yeggut ci dégg benn waay buy wax dara ci lislaam wala boog loo wooyee lislaam wala ci sab kuréel jàppoon naa ne doon nga jël sa téléphone woo ko ne ko sëñ bi lii nga wax de damaa bëggoon ñu discuter ci bu ko manee mun la bismillah kaay ñu débat débat ci bu ko mënul mu ne acca bismillah ubbil groupe kon ñu débattre ci wala ngeen débattre ko en direct wala ngeen toog mais jóg <laughs> subhanallah nga naan da ngay dem kër nit nga foog ne ndax kooku da ngay dem këram mun la non baal leen ma da ngeen a juum yéen kay da ngeen ay ay ponkal ngeen maa ngi jégalu kañ ak kan ngeen jàpp ne jàppi nit di dóor jàppi nit di leen toroxal fépp la walaabul wala ñëpp ko ragal wala ñëpp koy daw déedéet loolu ku ko foog da ngaa juum ak koo mën a doon ñun li ñuy wax nii wallahi la laa ilaha xayru yàlla ci lañ wakiirlu toog di ko wax yàlla moomu subhanahu wa taala moo ñuy dëgëral dañuy jox xam-xam boole koog ne insha allahu taala di ñu musal tamit nag yéen ñépp waxoon naa ko biig ma wax la noo waxoon fakki dooni jamian laa leen di wax summa la tunsaruun fexel leen ñu yéen ñépp wala fexel leen ma yéen ñépp bu leen ma sax muñal soo leen fi fekkon tay alhamdullilah motax nanguma won wo mbokki suñu di nek fi ci euh, gox bi ndax mbokk yoy buñ fi teeloon a yef yi tay jii mu ngi ni jeex na ñom dem nañ amana police ñew na fi encore man dina fa dem euh, ñu bind inshallah taala régler mbir mi yep ci walu police. waaye ta soo fi fekkon mbokk yi dund sunna nga xamne ne vidéo bu njëkk bi li tax mu éliminer ko moy ñom ak tangor wu fi ñewé ak xadar gu fi ñewé da ngeen waxuma sax tun ñi dund sunna mais même soufi sax am na yenn suuf yoo xam ne bu ñu leen fekkoon si ñoom dara du leen jar tey ñoom ñi nii doon wax fii nii donte am na ñoo xam ne xay na du du doon ñëpp waaye nag ma di leen xamal ne leen nekkul ne lu ngeen seen mu weex wala lu ngeen seen mu ñuul ndox la mbaa lu ngeen seen mu weex rek yëre la bu ñu war a sol déedéet demeewul noonu këyit daa weex ay du ko sol bu leen bu leen sàggan bu leen saytaane wor bu leen kenn dugal des ci li ngeen gëm ni ngeen ko gëmee sañ koo manifesté wu keneen lam gëm noonu la ko gëmee sañ koo manifesté wu da ngeen di toog di weddi lu ñeneen gëm ñeneen dañuy toog weddi li ngeen gëm yéen rawat na nag ba ngeen ko gëmee te saxut te ngeen wéy propagande nit di ci jël alalu nit ñi tamit ñi doon wax fii lu néew laa leen laaj masala yu néew kenn ci ñoom mënu ko tekki kenn ci ñoom xamu dara da nga xam ne ñii xamuñu ndeysaan mais da nga xam ne tamit ay victime lañ <laughs> mais alhamdulilah rabbil alamin buñ ci jógee ko li nga recevoir ci ay téléphones yu bokk ci seen parti sax ñoom di la wax ne la leeral yi ngay leeral am na solo leeral yi moo ngi am sens ñun ñoo ngi ciy jëriñu yaa ngi ñuy xamal loolu fa alhamdulilahi rabbil alamin bu fekkoon ne ñooñu waxuñu loolu tamit day ñun dañuy xam ne ni yàlla subhaanahu wa taala moo ñu tax di liggéey ngërëmal yàlla la ñuy wër te ñu ngi ko ci yaakaar incha allahu taala dañuy continuer ma leen di wax nag ne leen luñ doon def benn incha allahu multiplier bi isnillahi taala des na wuti marto soobe borom fasiyene ni dajji mbooleem caaxaan yi nga xamne ne nit ñaa koy wax ci turu diine danañ wut pic ak marto brin dajji bepp caaxaan bu nit wax ci diine ak fo mën fo foo nek a xamne ni da nga pare pour défendre lulu ak xam-xam waajal nafaral bu baax li rël say ku pare pour défendre lolu ak doole pare ñun mom bo dikkee inshallah taala daa ñu fi fekk fekk nak yàlla bi ma mbokk bi ne ma yow sa njëmm si <laughs> ree daf ma jàpp sax damaa xam ne nii kii ndekete man fa ma nekkoon ba may am six ans sept ans mais sama doom bi mu fekk moom muy jàng ndax ñoom bi ñuy ñëw dañoo fekk boobu xale yi commencé di jàng eh, añ bi yegg si xale yi teg seen téere yi mais xale bi mu fekk muy jàng sax amul doo dégg sax mu wax la façon wax yi mel noonu abadan non non non non sept la am juróom-ñaari at doo dégg mukk sama doom boobu wax la wax ju mel ni wax ji kii dem insha amin ya rabbal alamin ya cheikh muntaxa fall ñoo ngi lay amin ya rabbi amin sama doom bi am sept doo ko dégg mu waxee waxee ay doole taxaw ak nit naan ko yow sa njëmm sii nii ah, yow xam nga ne yow ñun xajuñ ci yow li xam nga ne nii sa bakkan bi moo ci des ndekete woo waa ji moom li muy xool jëmm ji mooy moo ne poids ndaw la de waaye kàddu gii de moo la yëkkati ba fu sori nga jël oto yaag sa yeneen i morom ngeen jël see ba fii ndax moom ak njëmmam su tuuti si xanaa xamu leen woon loolu xanaa xamu leen woon njëmm su tuuti si kon lu borom te xam waru cee nekk lii muy wax nii nañ ko jël rek ñu génne vidéo bi daj ji ko pièce par pièce dellowaat ko ko ci Facebook bi mu ko waxee woon non dañ fay dem ñu saaga ko mbaa ñu dóor ko moo tax bi ma commencé wax ñoom bi ñu demee ba saaga ma xamoon naa ne fii ngeen di mujjee mooy saaga lii mënoon ngeen koo def par téléphone mënoon ngeen ma koo arrêté ci whatsapp saaga dong ngeen di mujjee ak xuppaate menace saaga nag xuppaate menacé loolu jarul déplacé dem ci kër nit violence bépp kuréel goo xam ne nii lañ ko nawee mooy violence kuréel boobu kuréel la buy doon torox ci àdduna torox ci àllaaxira bépp kuréel boo xam ne liñ ko xamee li muy dundee mooy violence kuréel boobu day torox fii ci àdduna di dund ci fitna day torox fa àllaaxira ëllëg kurel bu mu mën a doon nag ab kurel day jël dund ci xam-xam di wax xam-xam di défendre xam-xam di lay ci xam-xam xam-xam la ñuy jiitee ab kurel xam ñu amul xam-xam waru ñuy wax ndem ci diina la ñuy wax su dul loolu ñu dem ci làmb ci dem wut écrit ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jégalu ñëpp wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh